xam nga Ousmane Sonko mi ñuy wax il est formidable il est extraordinaire dañoo wax téléphone man ak moom déglu ma une heure de temps xam nga ku toll na Ousmane Sonko nga wax moom une heure de temps euh, euh, euh, am na lu tax. merci beaucoup une heure de temps laa wax man ak Ousmane Sonko xam lu ma wax kenn du ko dégg ci beneen télé wala beneen rajo ci yéen ngeen koy njëkk a déggee exclusivité maa la koy wax daf ni ma Ablaye lii ma lay wax nag matagul sax weer daf ni ma Ablaye xalifa Sall xam nga lan moo ko gën a sonal. mun ma opposition parti yi ci réew mi yëpp opposition bi ci mi yëpp buñ doon wax benn ñaar di xool ñi fi gën a jub gën fee honnête gën fee baax gën fee dëggu ah booy lim benn ñaar ah Khalifa Sall moo cay jiitu kenn du ko ca jiitu ku gore la ku sincère la ku dëggu la nit ku set la waaye Ousmane Sonko bu doon ko bu doon bu doon day wujjeeg Khalifa du seede lool ci moom te xam na man xam na ni ku gestu yow gisee xalifa danga may gis su demee ba wax ak man lool ci téléphone dafa fekk mu dëggu te gis Ousmane Sonko. ak lu ñu ko mën a waxal lu ñu ko mën a waxal ku gëm Sénégal la ku bëgg Sénégal la nee nga nag da nga ma laaj ci Ousmane Sonko danaa la ci wax tamit lu gàtt mais li ma la bëgg a wax daal. parce que temps yi moom euh, euh, na def levée de fonds bi pour pour jàppale parti pour mën a def tour nekk extérieur ministre de l'intérieur nee na loi bi da koy tere te loolu tamit mi ngi andi caw. waa dama lay laaj. vidéo bi tey ci suba man maa ko jël maa ko am am naa vidéo bi mi ngi ci whatsapp beeg internet yëpp Macky Sall le secrétaire général bu APR bii. bi muy def campagne pour jël Sénégal dafa woo ñi nekk ci extérieur yëpp collecté ay fonds woo ñëpp ñëpp laa wax. vidéo baa ngi nii tey démb ba tey gaa yi ngi koy kii man maa def découpage bi tas ko waaw naka la Macky Sall mën a def loolu ñu jàppale ko ak ñeneen ak ñeneen jàppale ko ci lu ñu xam nag mën koo wax lu bari te doon ko wax daf fee xaju lañ koy résumé rek ba yàlla def tey Macky Sall tey toog ci bopp réew mi Ousmane Sonko di ko def ñu naan ay